dal leen ak jàmm ci leeral point net tey jii ci xëtam gu njëkk ñu ngi xëyee fiasco de la réunion de Yewwi Askan Wi sur 37 partis et mouvements seuls 5 ont répondu à la convocation de Ousmane Sonko naka noonu rek daal ñuy xam ne lu daal di xew ci Yewwi Askan Wi gannaaw rek daal ab réunion gi ñu daal di woon organiser waaye dafa mel ni ab sabotage moo ci daal di am ndaxte ñoom ñëpp daal 37 la waaye cinq rek daal ñoo daal di wuyu ca loola ci convocation bi ngir rek daal mën a xoolaat ñoom ñi seen taxawaay ca coalition gile comme niñ ko xamale rek daal la grande coalition de l'opposition gii daanaka rek daal ñoom ñu ngi nekk ci guddi gu bët setul naka noona rek daal ci ab réunion gi nga xamante ne organisé nañ ko naka démb di 19 mai rek daal Ousmane Sonko muy tête de liste daal Yewwi Askan Wi gile gannaaw gi mu daal di convoqué ab réunion ci seen siège ci parti Déthié Fall gi ci VDN gi waaye daa mën nga xamante ne woon na leen juróomi personne rek daal ñoo ko daal di wuy si maanaam xalifa Sall moo fa daal di ñëw Aïda Mbodj Maymouna Bousso Déthié Fall ak moom mii di Ousmane Sonko moo leen juróomeel naka noonu rek daal yeneen de leaders yëpp daal dañoo daal di boycotté réunion gile naka noonu ñuy daal di xamle fu mu ne nii nag daal réalité yii dafa mel ni rek daal ñoom dañoo nekk ci ay jafe-jafe loolu yëpp daal ci seen biir gannaaw daal a sortie gi nga xamante ne Ousmane Sonko réunion boobu rek daal dañ ko daal di convoqué ngir rek daal xoolaat yenn anglais fan la ñuy fattaat ak seen i faay ak ni ni mel ndax fu mu ne nii nemmeeku nañ ci yeewee askan wi kat daal bu ñu moytuwul ci tas la ñu daal di jëm ndax fu mu ne nii amel ni rek daal Ousmane Sonko li mu bëgg a imposer daal mooy volonté am noonu rek daal feeñ na ci réunion gi nga xamante ne maanaam ab salle vide rek daal lañ fa nekkal comme li yéene kaay gi xëyee échec total ci réunion gi nga xamante ne Ousmane Sonko woote na ko ngir rek daal réintégrer itamit ki nga xamante ne mooy Mamadou Thiam ci groupe WhatsApp bërëb googa ci fàttaliw moom mii moo génne woon ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Thiam gannaaw rek daal gi mu waxee ne Khalifa Sall mile ab sàcckatu euh, ceeb la ak dugub ak ni ni mel moom daal mu daal di ko retiré taxaw itamit ci conférence de presse am moom mii moo ko daal di retiré te ku def ni ni mel moom itamit du hésité retiré ka ndax moom moo créé groupe ba te itamit day assumer bépp responsabilité te noonu yéen kaay bi diñu daal di xamle ci ay négociation yu metti rek daal la Ousmane Sonko mii daal daal di amal laala rek daal ki nga xamante ne mooy caam di jël appelam gile waaye ca noona rek daal dugalaan nañ ko ci groupe whatsapp bi te kenn laaju ko avion yi tamit naka noona loolu la yéene bi daal di xëy tamit ab laaj gu samp rek daal ne ñëpp nag yaakaaruñ mu woon Ousmane Sonko dana daal di dellu ginnaaw ci décision gi mu daal di jël di retirer euh, bi nga xamante rek daal mooy président caam ci groupe whatsapp gile loolu daal ab bu samp la ñu sukkandikoo ci yéene kaay gile ba tey ci tendu naka rek mbirub euh, Adji Sarr ak Sonko euh, ki nga xamante rek daal moom mooy euh, beneen masseuse googa déglu nañ ko rek daal ca mercredi ji ñu jàll naka noonu rek daal doyen des juges gi moo ko daal di déglu waaye nag daal yéen gi di daal di xamle ba tey ji audition bi mu ngi daal di wéy rek daal ci mbirub Sweety Beauté ba tey ji le doyen de juges nag daal di Oumar Maham Diallo moom naka daal dafa daal di déglu rek ki nga xamante ne moom mooy masseuse gawoon muy ki nga xamante ne rek daal muy Aïssatou Ba alias Maman naka noonu bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ñu ngi daal di xamle information gilekat daal mu ngi daal di dikkee naka tey jii waaye maman mi li mu daal di xamle rek daal mooy moom sax dafa daal di wul yàgg sax fële ca suite yi beauté ba tax na rek daal lu gën a bari moom def ko fa une semaine rek la daal di def waaye nag daal laaj nañ ko lépp loo xamante dafa aajoo rek daal ci ñoom massage gi nga xamante ne dañ koy daal di pratiquer maanaam massage sexuel gi ñuy daal di woowee naka noonu rek daal moom li mu daal di xamle moom sax daal amul dara loo xamante ne daal xam na ko ca naam am na ñoo xamante ne itamit commencé woon na leen maase ndax commencé woon na sax di maase ñetti nit rek daal waaye fala daal di yem ndaxte moom yàggu fa kon nag daal mujjul sax pratique li nga xamante ne moom mooy massage sexuel comme ni ñu ko wax muy ci laps de temps gi mu nekk ca Sweety Beauté naka noonu rek daal muy eh, ex collègue bu Adji Sarr daal wax nag doyen des juges gi lee ngir daal xamal ne ko liggéey gi mu daan def foofa waaye tamit mu yi fa nekk yëpp sol mooy ay dessous jetable maanaam rek daal maanaam rek daal li ñuy tarax laayoo bu ñu noppee dañ koy daal di sànni ba tey rek ci xëtam gu njëkk ci leral point net HLM la police enquête sur une possible agression contre un homosexuel naka ca HLM rek daal police nag daal mu ngi daal di enquêter rek daal ngir benn agression gi nga xamante ne rek daal ci ab homosexuel lañ ko daal di amle maanaam rek daal ci ab euh, borom ñaari tur naka noona police Sénégal bii mu ngi daal di enquêter rek daal ci ab vidéo bi nga xamante ne gis nañ ko ci réseaux sociaux bi nga xamante rek daal day daal di wone benn waaye rek daal bi ñuy daal di yuuxoo ba noppi itamit daal di ko wër gu ànd ak i saaga ak ni mel maanaam rek daal ngir rek daal wax ne ñoom mbirub góor jigéen ak ni ni mel ànduñu ca loolu rek daal lañ daal di waxtaanee naka ca mercredi ji muy nag responsable policier gi loolu la daal di xamle muy ab vidéo bi nga xamante ne daanaka depuis mardi ba tey ji mu ngi ci réseaux sociaux yi waaye tamit xam nañ ni ki nga xamante ne rek daal moom mooy Gana Gueye di itamit joueur international xamante ne moom ci boppam itamit dafa daal di woon rek bañ sol mayo bi nga xamante ne moom mooy borom ñaari tur ya ngir rek soutenir seen journée mondial goog waaye moom mii ci seen bopp itamit gis na ni soutien yi nga xamante ne waa Sénégal apporter nañ ko ko notamment le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall itamit daal dina ko posté ba noppi itamit wane ko soutien am noona waaye ay critique yu bari yi nga xamante ne daan na ci ndoddam ca loola sénégalais yi itamit di daal di dox ni ni mel li nga xamante ne moom mooy naqarloowam ci comportement bi nga xamante ne ñoom ci seen bopp amal nañ ko ci joueur international gi naka noona jeune sénégalais yi itamit ñoom ci seen bopp dañoo naqarlu loola ñu daal di rek daal gis ne ñenn ñi nga xamante ne dañuy daal di comporté woo comme ni ni mel di leen daal di dàq ji wala ni ni mel waaye tamit di dal seen kaw looloo dal waa ji nga xamante ne dañ koo jàpp rek daal di ko yuuxoo ba noppi wër ka di ko saaga simbi ay yéreem simbi ay dàllam ba mu dese caleçon dong di yuuxu itamit askan wi di daal di wax ne homosexualité ko mës a nangu fii ci mim réew ba tax na rek daal ñu daal di ko jël ñii di dóor ñii di kong ak ni ni mel mu mujj ci rek daal jëlee ab gaañu gaañu waaye nag daal noppeegu ne coloo la ñu ko naan sale homosexuel lii yëpp daal mbirub euh, jigéen la maanaam yëre jigéen fii kenn du ko fi sol te ku ko fi sol itamit duñ ko bàyyee noonu te fim réew képp rek koo xamante ne comporté woo nga ni ni mel dañ lay daal di rey balaa police daal di ñëw ci ab vidéo bi nga xamante ne rek daal mu ngi ci réseaux sociaux yi waaye ne mel ba tey ñu yokk rek daal ay ñu mel nii amu amuñu sax droit dund file loolu daal la askan wi daal di wax ci ab vidéo bi nga xamante rek daal daal di nag itamit daal génn ca aslem waaye tamit ci commissariat bu quartier bu aslem policier gili daal li mu daal di xamle muy itamit ci couverture anonymat ci ay journalistes yi nekkoon sur place maanaam l'AFP ñoom nag daal li ñu daal di xamle muy waa jooju dañ ko dal di yóbbu rekk daal ca Vega waaye tamit ci ab information googa dippeewul noona waaye tamit ñu daal di xam ne day daal di wane ne ñi nga xamante ne daal ñu doon def jëf yile ci mim réew waaye ñu daal di xamle ba tey ji investigation yi nga xamante rek daal ñu ngi koy def te ñu ngi koy amal itamit ngir rek daal xàmmee ñi nga xamante ne ñoo doon def lile waaye nag ci dëkk bi nga xamante ne quatre-vingt-quinze pour cent ci musulmans maanaam ay pratiquants ñoo fi nekk rek daal homosexualité duñ ko fi daal di nangu benn yoon naka noona même loi bi sax daal dina ci àddu ñoom daal képp koo xamante ne dañ laa bett ngay def ni ni mel cinq ans de prison moo lay daal di xaar leneen waaye nag ci ay homosexuels yi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi tàll nañ leen ay micro ñoom nag nee nañ ñenn ñi itamit dañoo daal di ragal sax ay agression ak ni ni mel wala sax daal ñu leen di traité leneen moo tax ñu bari ci ñoom daal dinañ daw rek daal ngir daw ay discrimination wala ay saaga ak ni